ñu sant yàlla bu baax gërëm suñu waajur ñaanal leen yàlla yàlla yàggal leen fi may leen fanu gudd ak wér ci barke Cheikh Ibrahim gannaaw lool ñu sant suñu bunt suñu lépp ki nga xam ne moo ñi fàkkaloon lii nga xam ne dafa ñëwoon seet ci ma bés bi may seet mu ne ma am ñu ñëw ne ko sëriñ bi mu ne ko waaw mu ne ko am na daayira bu yittewoo nga def mu ne ko ci Moustapha Diouf laa jëm mu ne ko ah fee man nga fa am xaalis bu bëri de mu ne ko Moustapha ma gënal xaalis ma sant yàlla moo ma tarbiya njabootam yépp a ngi fi Pape Diop ñu ngi fi sëñ aadi ñoom ñëpp a ngi fi seex Tidiane Thiam ñoom ñëpp a ngi fi ku nekk xamoon na ne Baye Babacar Thiam wax dëgg yàlla am fu ne yóbbu na fa sikkaru laa baatub laa ilaha fu ñu ko yëkkatee xol yépp bi kon kooku dañ koy sant ñaanal ko yàlla bu baax a baax a baax ñi nga xam ne la fi teg maa ngi leen di sant bu baax ginnaaw loolu ñu sant yi tamit Cheikh Baye Adi di ko ñaanal yàlla gërëm nañ ko lool lu tax gàmmu gi du weer wi lañ naan ko def gàmmu gi mais lañ naan ko def mu ne ma Moustapha bëgguma yeble ci gàmm gi dama bëgg a teew kon nañ seet weer woo xam ne dinaa fi mën a ne ñu def ko ma ne ko ñun amuñ bëgg-bëgg ci seen kanam amuñ gis-gis ci seen kanam amuñ namm-namm ci seen kanam lu ngeen bëgg rek ñun loolu lañ bëgg mu jàpp ko bi mu ko jàppee samedi bële passé dem naa benn gàmm gis nga topp dafa am solo bëgg gëm li nga ne dafa am solo mu ne dama naroon gàmm léegi tukki ndax dafa am fuñ koy boloon pour mu war faa tukki nga xam ne mooy xalifa bi te lépp lu wax rek ci loolu la ñu nekk ndax mooy suñ jiit ci lépp ñu ne ko kon ana nooy def Moustapha mu ne leen damay dem ba ajjuma ma ñëw bi ma def gàmmu gi delluwaat li di def xalifa bi woo ko ne ko ñu fomm mbir mi mu kontinewaat mën a toog kon xoolal loolu Cheikh yi dañ koy sant bu baax di ko gërëm Maulana Cheikh Ibrahim moom leen ko tuddee mais doon na ko ci doon na bu wér doon na xaqiqatan li tax ma wax loolu mooy taalibe yi fi nekk yëpp ku ci ne da yaakaar ne li Mawlaana si Ibrahim def ci yow defut ko ci kaneen da ngay foo yow li nga xam ci moom kenn xamu ko ci moom Cheikh Bayadi noonu la mel taalibe yi ko wër ku ci ne da ngay foo fi mu la féetee amul keneen kum fa féete ndax ki nga xam ne waa juróom la moom la wax dëgg yàlla am sama wax léegi soo ñëwaan daf naan la amul problème noonu tax lañ ko tuddeewoon aajo lum diis diis doo jaaxle jaaxle soo ñëwee daf naan la amul problème te day faju ma dégg si imaam Malik Ba mu wax wax bu am solo mu ne papaam amul problème la loon wax noo ko bëggee moom loolu la moom loolu la jël moom noo ko bëggee soxla lu diis diis soo jaaxle jaaxle mu ne la noo ko bëggee kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan mu gudd ak wér musal ko ci musiba ak balaa musal ko ci cat yàq ak yàqule ci barke Cheikh Ibrahim ñu santaal yàlla bu baax ci Oustaz Alioune Ndao ñi nga xam ne dëgg-dëgg dimbale na ñi ndax du fii sa kër sàmbaraxi jóobeen la woon ñoom moom bu fi saa yu amee ci moom yitte gisuñ benn at boo xam ne wuute na ko lum xat-xat dafay teew waa jag saaw xam nañ loolu te nañ ko mu woyof boroom xam-xam bu mag a mag a mag waaye woyof tol saa yoo ko soxlaa jot ko duhut koo xam ne danga koy woo di jot nit door koo jot mook Cheikh Baye Hady ñoo yem ci lool kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér ci barke Cheikh Ibrahim ñu sant yàlla ci imaam siis dañuy sant yàlla ci koñ bii ñu ne di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér ndax imaam bi ñëwee ci koñ bi jàngee neen ci moom lu bari